bés bi la ñëpp doon xaar tuddee ko jour ji moo ñu tere woon ne law nekkoon suñu souci suñu papa ak yaay ñun rek la ñuy xaar réussite égale discipline plus waar anticiper fu lay jàll na am na lu des nag PC toj mat littérature toj kat bac duñu def mais ñoo koy def kat def kat duñu def mais ñoo koy def kat ya bac dafa yaatu tax lu nekk mën na génn wante. approché. milliards 437 mille 239 numéro 1 milliard 390 mille 947 Baye Modou Thioune wooy wuy sama de wooy numéro 200 milliards 437 mille Fallou Kandji milliards huit cent trente sept mille neuf cent quatre vingt dix millions Modou Lo. waay sama yaa ko wane ko wuyu sama naay. numéro. six cent cinquante milliards six cent soixante deux mille millions mille sept cent quarante sept Adama Mbengue. numéro. huit cent quatre vingt dix milliards quarante quatre millions. 1790 000 Aïdara Samou. waay waay. ku nekk ci mboobu mboobu ñu gaaras. doo defee poul. numéro 750 milliards 998 millions 137 mille. Sohibou. wuy sama ndey sama yaay waxoon na ma ko. nee na moo yeboo damay ànd ak Kounkandé dem jàngi France. danaa xotti géej danaa ko def juróom-ñaari mbedd danaa ko def. bi si yoomul assurance si takkusaan. ay yàlla dafa li si gaaw. numéro 101 milliards 732 millions 747 Badou. waay waay waay Primero! Primero! Primero! Primero! Numero bir. Numero. Numero. Numero. Veriniz. Sababat! Sababat! Canımı sababat! Numero. Zaten numero. 101 millions 137 mille Abdallah Diouf. Abdallah.